que bu mel ni da nga ñëw ci kuréel bi nga xam ne waaw vote par force taxawal lañ ko mel ni du matti du matti mu mel ni ñooñu loolu yéen lañ ko defal. waaw taxawaay bi mooy sant d'abord suñu bopp noo noo noo iti Touba lii bu fi xewee dafay wane ne waa dëkk bi ñu commencé ndax booy nag ci démographie maanaam ñu gën a bëri Sénégal dëkk bu dañ ne Touba mooy deuxième grande ville du Sénégal wan boobaa dañuy dëkkale Touba ak région de Dakar région de Dakar mooy département de Dakar département de Pikine Guédiawaye Rufisque ak Keur Massar boole moom mooy dëkkale Touba kon bu doon dëkk dëkkale rek Touba amul na ñu ne Touba mooy la deuxième ville primatiale loolu primatiale te bu ñu waxee mooy ci wàllu koom-koom ak ci wàllu démographie doomu aadama ñu gis ni bu dee ci koom-koom réew ginnaaw Dakar région Dakar mu ëpp lu ñuy ci koom-koom Sénégal te gis nañ investissement milliard li njiitu réew mi di jël ak équipement di ko def Dakar mën nañu wax verte mën nañu wax terre man na ko ay ay mag a mag a mag a mag ay milliers de milliards ñu def ko Dakar te bu dee Touba mbënd mii paase rek vingt trois milliards yi président bi waxoon da koy def Sénégal da koy def fii ci Touba ba léegi def ko dara mu leer ñu bu tawaatee mën nañu leen ñëw nga xool Touba université Bambey wax na ni deux cent quatre vingt cinq milliards mom lañu consommer ci ñetti meeru màggal mooy lakk circulant xaar bi dund daanaka moy ceeru li douane bi dugal ci Sénégal kat nga xol li Touba bi dugal ci walu carburant bo xol ci walu téléphone ci téléphone boo bu raw Dakar statistique yooyu ñoom bi ñu ko fayee mais buñ fayoon statistique dañu wone ni dañu gis ne Dakar Touba faral ci wàllu téléphone li muy même Jimbo Nestlé premier client ci Sénégal Touba secteur yëpp boo demee Touba raw na Dakar mais duñ ko wane parce que bëgguñu waa Touba xam parce que alal réew mi pare pare nañ ko jox waxuñu Touba en tant que Touba dë dëkku diine mais Touba en tant que dëkk moom ay sénégalais ci di contribuer ci koom-koomu réew mais njiitu réew mi sàkkee département bi joxuñu suñu gëdd faale wuñu pour amee solo daal ñëw ci sañ ba xam moom jamaat mbéyum kanam borom moo koy fay

bu ko defee wàññi train bi état bi dugal ci lekk dugal ko ci naan dugal ko ci faj mi dugal ko ci sécurité bi dugal ko ci njàng fi may daane rek bu yàggul état bi trois cent trente milliards nga xaaj ko trois yi ne daf ciy jënd ay immeuble yoo xamante fa def ministère yi d'urgence ndax ministère yi fañ nekkoon ay bâtiment bati ëpp bâtiment état kon de urgence ñu jëlee ñu ne trois cent trente milliards yi li ci def dañ ciy fay seen participation bi autoroute bi war a defal ah defar ay ñu alors que ñun ñi nga xamante ni deuxième participant suñuy taliba bu bu tawee mu inam te Touba Carrefour boo ñu Touba en tant que dëkk mais Touba en tant dëkk xam ay sénégalais pour muy leer beneen bi ci def ñu ne beneen moitié bi dañ koy dugal ci port bu ñu doon ndaayaan te la ci gën a doy waar mooy dans sept ans la ñuy fay premier tranche cinquante cinq milliards yu njëkk dans sept ans la ñu koy fay kon ñoom seen régime dana jeex lu yàgg askan wi door a commencé fay deuxième tranche benn cinquante cinq milliards dañ ko fay dans dix ans ñoom danañ toogaat fukki at door a commencé fay fay benn tranche deux cent vingt milliards dañ ko fay dans quinze ans kon ñoom li ñuy leb di ko di ko jël di ko ci ay projets yu mag yoo xam ne danañ ci am ay commission am ci xaalis askan di gënal a di gën a sonn te buñ koy fay duñ ko fekk ñoom dana leen fekk seen régime guerre ñu nekk yan condition ñu askan kon dund dugg métti occasion pour que jeunesse bépp jóg taxaw foofu seen i bët voté massivement pour que coalition Wallu wi gagné renverser la tendance mu am cohabitation ñu liggéey des réformes pour avenir bi kon nag ñu xaalis sëñ sëñ Diagne normal ñu ngi leen di félicité di leen encouragé di félicité mbooleem jeune bu ak Sénégal pour ñu xam ne enjeu bi intérêt ndaw yi